Donc merci à ceux-là qui ont posé ces questions. Je voudrais d'abord commencer par Mme Maguetsey de Walls Quotidien, qui dit que j'avais invoqué un blocage pour justifier de la décision de M. le Président de la République de retirer le décret qui convoquait le corps électoral. D'abord, je la remercie. Je vois qu'elle m'a bien suivi et j'expliquais cela à l'époque sur les antennes de la RTS. je l'avais effectivement dit, parce que nous étions dans ces conditions de blocage où entre le Conseil constitutionnel et l'Assemblée nationale, il y avait un jeu de c'est moi, ce n'est pas moi, c'est plutôt vous, ce n'est pas vous. Et le président de la République, en sa qualité de garant du bon fonctionnement et du bon fonctionnement régulier des pouvoirs publics. C'est une responsabilité constitutionnelle du président de la République. Or, à l'époque, rappelez-vous, Il l'avait dit lui-même. Il ne pouvait donner injonction ni à l'Assemblée nationale, qui est un pouvoir souverain, ni au Conseil constitutionnel, qui est aussi un autre pouvoir souverain. Et il a décidé de laisser le libre jeu des constitutions, des, des institutions. L'Assemblée nationale a délibéré souverainement, a estimé qu'elle elle devait acter par sa délibération le report. Le Conseil constitutionnel a délibéré souverainement lorsqu'il a été saisi des recours et quand il a rendu sa décision, qu'a fait Monsieur le Président de la République? Je pense que ce qu'il avait dit alors pour abroger le décret convoquant le col électoral doit se lire et se confirmer par rapport à ce qu'il a fait après. Parce qu'après, quand le Conseil constitutionnel a dit que lui, un, déclarer la loi votée par l'Assemblée nationale contraire à la Constitution et qu'en conséquence déclarer nul le décret abrogeant la convocation du corps électoral, Monsieur le Président de la République a pris acte. C'est en cela qu'il est respectueux et c'est la meilleure preuve La meilleure confirmation qu'il respecte les institutions et toutes les institutions. Aussi bien l'Assemblée nationale dans sa capacité de proposer des lois, de délibérer et de les prendre, que le Conseil constitutionnel dans sa capacité de censurer s'il estime censurer. Et lui, président de la République, il prend acte et il exécute. Et c'est ce qui s'est passé. Je pense que tous les Sénégalais au-delà de ce qu'a fait Monsieur le Président de la République, doivent être fiers de savoir que dans leur pays, il y a une assemblée souveraine qui délibère, il y a un président de la République qui gouverne et il y a un conseil constitutionnel qui arbitre et qui sanctionne. Sur la question de Monsieur Diawara. Mais bien évidemment que ça va de soi. Parce que dans quoi nous sommes aujourd'hui? Nous sommes dans la mise en œuvre de la décision du Conseil constitutionnel. Donc aussi bien l'Assemblée nationale que l'exécutif se plie à cela et c'est ce qui se passe. Quant à la question de qui a été posée par le républicain, c'est Mme Diawara, je crois, euh, qui a dit que Mme Rose Wardini a retiré sa candidature. Qu'en est-il de M. Karim Meissawad Mais moi, je ne peux pas répondre à la place de M. Karim Meissawad. La seule chose que je sais et que vous tous savez avec moi, c'est que M. Karim Meissawad considère qu'il a été injustement écarté de sa prétention de candidat à l'élection présidentielle. L'autre chose que je peux savoir, c'est que concernant Mme Vardini, elle a décidé en toute souveraineté, même s'il y a une procédure judiciaire la concernant, d'arrêter sa candidature et de la retirer et elle en a le droit. C'est la seule chose que je peux dire s'agissant de volonté personnelle qui s'exprime personnellement. Pour ce qui est de Afrique Info, tu dis qu'une dame aurait été torturée. C'était ça, votre question. Une jour... Donc, ce n'est pas, ce n'est pas torturé. Quand même, donnons leur sens à tous les mots. Pour ce que j'en ai vu, moi, je ne sais pas vous ce que vous avez vu. Voyez, moi, je relativise. J'ai vu effectivement qu'une journaliste a vu sa perruque enlevée et brutalisée. Non, non, non. alors oui attends. vous plaît s'il vous plaît. je je pense que s'il je pense que j'ai eu j'ai eu la courtoisie et écoutez bien quand je parle parce que vous quand vous me posez les questions j'écoute. Écoutez bien. S'il vous plaît, j'ai eu la courtoisie de vous dire pour ce que j'en ai vu. Est-ce que j'ai tout vu Est-ce que j'ai pas tout vu Je ne sais pas. Moi, je parle de ce que j'ai vu. Vous ne pouvez pas vous m'imposer ce que vous savez, ce que vous avez vu. Sauf si vous me le donnez là maintenant. Moi, ce que j'ai vu, parce que c'est des images qui ont circulé, j'ai vu qu'il y avait une jeune femme, journaliste, je suis d'accord avec vous, qui a été violentée parce qu'on a sa perruque et on l'a poussé dans un quart de police. C'est ce que j'ai vu. Je ne dis pas que c'est ça qui est vrai. Entendons-nous bien. Mais ne serait-ce que ça, ne serait que ça, pour moi, je pense que l'agent de police n'aurait pas dû le faire, ou l'agent de gendarmerie. Je suis d'accord avec vous. Mais c'est des situations, quand elles arrivent, on doit savoir le pourquoi et donner la mesure de correction. Et je suis convaincu, aujourd'hui, je suis convaincu que la hiérarchie de la gendarmerie ou de la police est en train de regarder ce cas. En tout cas, dans le gouvernement du Sénégal, il faut le savoir, nous n'acceptons pas que les gens soient brutalisés. Encore moins des journalistes, on peut s'entendre là-dessus. Vous venez avec vos badges, vous venez avec vos gilets de journalistes et on vous laisse faire votre travail. Maintenant, il arrive de temps en temps qu'il y ait des incidents. Ce n'est pas la première fois. Ayons la hauteur, et vous et nous, de régler l'incident d'abord, ensuite le dépasser. Donc faites confiance au gouvernement, cet incident sera réglé et il sera dépassé et la liberté de manifester va continuer et l'engagement des journalistes à couvrir nos manifestations va continuer. Je vous remercie. Maintenant, et comme je l'ai dit, la torture, elle est bannie au Sénégal. Elle est bannie, elle est condamnée et les auteurs de torture sont sanctionnés. Et c'est tous les jours. Je ne parle pas pour le plaisir de le dire. J'ai des documents à l'appui de ce que je vous dis. Maintenant, notre ami Massali de Libération, qui demande est-ce que euh, l'exilé de retour va être interpellé. La seule chose que je peux dire, c'est que le Sénégal, c'est encore un état de droit. Je viens de vous rappeler tout à l'heure dans mes propos liminaires que ceux-là qui ont été relâchés, entre guillemets, ils bénéficient de liberté provisoire. Ils ne sont pas encore définitivement jugés et relaxés. ils bénéficient de liberté provisoire donc c'est pour vous dire que la loi elle va s'appliquer dans quel sens je ne sais pas c'est aux juges qui vont juger de le dire par contre la vocation de tous les mandats d'arrêt au Sénégal c'est qu'ils s'appliquent et qu'ils soient exécutés quelle que puisse être la personne donc il y a des mandats d'arrêt qui ont été lancés ils sont actuellement à la police les mandats d'arrêt s'exécuteront et après, quand les juges décideront de mesures de clémence ou de, de, de, de, bonne compréhension, les juges le feront en toute indépendance. Il ne me revient pas d'apprécier. La seule chose que je peux dire, c'est que les, la loi est la vocation à s'appliquer au Sénégal et elle s'applique erga omnes, à l'endroit de tout le monde. Est-ce qu'il y a une sanction administrative pour abandon de poste Je ne sais pas ce qu'il en est. Je sais qu'il y a juste un dossier disciplinaire qui relève du ministère de la fonction publique, qui lui aussi à son tour appréciera, comme moi le ministre de la Justice, j'apprécie quand il en est question des procédures ou du droit en général. Dernière question, c'est celle euh, qui m'a été posée par le représentant de l'AFP. Qu'en est-il Est-ce qu'il y a une liberté provisoire qui se prépare pour Bassirou madame voulait parler d'accord pour Bassirou Diomaye Faye et pour monsieur Ousmane Sonko la seule chose que je peux dire les concernant